Sène lan mo tax mu def fixation ci Balla Gaye 2 ne dootuma bëreeg moom. am na ñu demone ci Almeria man xam naa ne du Balla Gaye man loolu ku may indil kaamil man dina ne du Balla gay numéro parce que Baye Ndiaye ni mu waxe keneen ki mo dess dan nañ Modou Lo dess na keneen Eumeu Sène dama ko fan Eumeu Sène roi des arènes bu digne roi des arènes bo xamne soxorul iñaanul dama sétane léegi ben interview bu Modou Mbaye def ak moom ndax Eumeu Sène doon def anniversaire am Modou Mbaye daal dafa dem wax nañu presque dix-huit minutes mu laaj ko ci combat Modou ak Balla Gaye mu laaj ko lu tax ngay bëri Modou Lo te Balla Gaye moo daan moom mu ne combat ak Modou Lo signé woon nañu ko bu yàgg def nañu protocole d'accord mais bu loolu weesoo moom am na benn wax bu mu fi waxoon moom bugg sax jaar ci tour Balla Gaye interview bi dem na ba jeex tudd tour Balla Gaye mais dafa ne am na fi benn wax bu mu fi waxoon wax bu mu waxoon mooy dafa ne dootul woon bërëg ak Balla Gaye mais avant may ñëw ci loolu li tax ma ne la dama ko fan li tax ma ne la Eumeu Sène ndaanaan la jikkoom dafa rafet xol bi dafa rafet mooy dama gis ne dafa respecté adversaire bi dafa respecté Modou Lo li tax mu bëgg bëri ak Modou ne Modou Lo moom ku ko daan di ko amal yat bi moom dafa promettre waa Pikine dina fayu dina jël revanche te dina jël revanche avec la manière maanaam buy daan Modou jël bu bu doy lay doon du jël bu rafet nee na Modou Lo ba mu koy daan moom du woon mbër da doon bëri nii rek waaye du woon mbër c'est-à-dire Eumeu Sène gëmul woon mystique ku fu nekk la daan lekkee fu nekk la daan dem mais nee na mbër da war a gàtt tànk man waxoon naa leen waxoon naa leen ne comme Modou Lo ak seen Sène dara ndara supporter Balla Gaye yu bëri ñu ma doon attaqué du ne ñu koy wax da ngaa faral Modou Lo lu tax nga bañ Balla Gaye mais du question dama bañ Balla mais damaa gis ne Eumeu seen man xamoon naa ne fi mu jàpp dafa dëgg. te tey lan la wax Modou Mbaye nee na ba ba may suuf li ma waxoon ne duma ma bëri Balla Gaye jaaru sax su turu Balla Gaye dootuma bëri kooku dootuma bëri mbër boobu waaw man loolu laa jàppoon

nu muy def ba jëlaat roi des arènes parce que même Eumeu Sène bu fekkee ne dafa ne du bëre Balla Gaye numéro 2 mais bu yàlla tuddee ne dañuy bëre dañuy bërewaat musuñu gis roi des arènes bu mel ni Eumeu Sène nañu waxante dëgg ci dowaar mooy Eumeu Sène dafa wax wax du garaaw nee na Modou jour bi ñuy bëree daf ko wax wax bu ko métti ci digg géew bi loolu taxoon sax muy jéem a xëcc sengoo Modou Lo nee na bu ko Modou Lo daanee tamit Modou Lo ñëwaat na ci moom wax ko moom nag nee na vraiment yëf yi dafa war a rafet ndax moom li parce que nee na Modou Lo gentleman nee na dafa yàgg yërëm Modou dafa ko yàgg bëgg moom dafa fan Modou Lo ni ngay waxee da ngay xam ne moom dafa respecté Modou Lo dafa fan Modou Lo bu ko neexoon tey ma bëri ak Modou ko cent millions cent cinquante millions ba deux cent millions bu ko neexoon mu ne kii xol bi moo rafet nee Lo ba muy njëkk bëri ak dafa gisoon ne ñëpp dañ doon sot Modou Lo boobu xalaatuloon sax ne dina bëri Modou Lo mu ñëw ànd ak Modou Lo moo tax nag Modou Lo liñ koy laaj mooy bu fekkee ne dañuy bëri yàlla tudd combat bi ñu signé ko mu bëre. li mu waxoon Eumeu Sène ci géew bi. vraiment ñu ngi koy ñaan mu respecté Eumeu Sène. mu ko wax parce que na rafet na nice waaw léegi nag Eumeu seen lan moo tax mu def fixation ci Balla Gaye 2 ne dootuma bëre parce que bu leen fàtte ne Eumeu Sène ba mu fi njëkkee ba mu daanee Balla Gaye dafa naa deuxième fois bi dafa ne dootuma bëri ak moom parce que dañuy dem sama almeeru yaay am na ñu demoon ci almeeru yaay man xam naa nag Balla Gaye man loolu lu ma indil kaamil man dinaa ne du Balla Gaye numéro parce que Balla Gaye dafa génn ni mu waxee ni mu waxee man xam naa ne du moom mën nañu wax ne leneen li tax Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye dépp ba ñu dugalee seen loxo ci combat Modou Lo ak Balla gis nga ba combat bi jeexee Aziz Ndiaye ni mu waxee Baye Ndiaye ni ki moo des daan nañ des na keneen ki bëgguñu sax jaar si turu Eumeu loolu dafay wane dafa mel ne ñaari camp yi dafa am benn haine viscérale maanaam bañante bu métti boo xam ne daf ci daf ci rax xëy na tamit loolu day tax Eumeu Sène bu bëggoon sax bëre ak Balla Gaye numéro 2 parce que jabaram ay temps génnoon na di di wax ne garaaw loolu mën na ko dox mais ba ñu gisee Aziz Ndiaye nu mu tëkkoo Eumeu Sène bàyyi nu mu tëkkoo ñii naan dañuy dem Nigéria dañuy def lii ak ñu ngi ci géej yeeg mystique yeeg yooyu est-ce que loolu tamit du gën a tax Eumeu Sène même bu bëggoon bëri Balla Gaye sax mu ne ah léegi dootuma bëri moom moo tax lamb bi il faut que ñu rafetal ko ñëpp nekk ay xarit Modou Lo gis nga Eumeu Sène tey seen diggante bu yàqu woon kon du ñu bëre moo tax na mais ñëpp dañ war a teg rek ci cadre lamb quoi